ci moom cabinet médical traditionnel Serigne Medoun Sey borom tawfeex di kat cosaan booy jëfandikoo gantiax ngeen mën ko fekk ca Dakar Touba Kaoulak Thiès wala Sakhindar Ndar ngeen ko nak jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34 mo leen di may sen sketch ganu Thiès. yàlla may nu te jox xanaa xamoo yàlla da leen waroon boole ci koor gi sa genre gi parce que bëri na ci ñoo xam ne dofuñ dañuy dof doflu pour ngeen xam léegi ci lu tax nga bëgg ah, yow ma ah borom nag ak tey daal tey daal lii nga bëla waaw yow yow yow yow yow yaa moom ñu ni ci biti nga weelu kool nga solli cere soo ko selloon dinaa ko gis kay da ngaa yabaate gars yi dëgg ah da nga da nga da nga lii sa yoon nëwu ci. ki dafa ki yow yaa ko gën a réew li mu sol lan moo ci ne. xam nga lan moo ci ne. lu ci ne lan moo nekk ci lu mu sol yéen bàyyi leen di diisal mbir mi te mbir mi diisul lii mu sol dara newu ci ah nga bëgg garaawal. boo ko xool woon doo ko gis. demal ardo te ñëw très <laughs> bii jël. yow dërëm xamoo la wàcc na xamoo lu ci ne. ah, ah, ah xamoo la moo ci ne. dërëm teg nga ma tension dërëm teg nga ma ulcère wax ngaa wax ba ma avorté dërëm instant yi début laa amee. ak évolute buy doole buy waaj a yow lii mbaa jàmm la ah, Dakar nag ku mu wum ku ne daa fekk nga màcc ko. xale bi la mu sol su la intéressé woon doo ci wax sa kaamil nga yor fii ndax ci ci weeru koor nga. ki daa xam loolu ki daa xam kulus. kii du yor kulus kii kii kii su waxee kii laa mais day fakkasalu foofu waaye day may ban dong ni daanu suuf mooy man damaa jàpp ni kii li mu sol dama laa laaju gumbal tal na leneen lu dul euh, nasi puso talal sa bopp man sëy bi su doon groupe whatsapp quitté naa bu yàgg dama sonn chaque jour même chose chaque jour même chose yow lan la doo suur yàpp doo lan la ah, jeex na jeex na kii voilà bu ma wax loo ah. ah jeex na jeex na eh, eh. ñank ba xol bàyyi ma yow bu ma wax loon ardo mi laa bëgg nga ardo teguma ko sama bët ki ne yow it dégg yow loo ko wax léegi wii wii jal wii jal nga wax wii jal kan moo ko wax wii jal yow yow waaw waaw yow kenn ne ah, ki ki ñanku man dégg naa lépp damaa xam ne rek koy kuy raxas boppam yàq ardo moom message groupe whatsapp la ni lañ koy partagé ni, ni, ni. nii soo ma ñu dara nag da ngaa war a doomu jàmbur ji ngay partagé ardu mi nga ñëpp ci kër gi nga war a yàbbi. du ma ko yàbbi tant que ah, teggiwoo sa bët yi du ma ko yàbbi. man tegguma ci sama bët. waaye yow yaa teg sa bët ci ardo yow lan la bu ma yëngal laa la. waaye yow damaa a ci weeru koor bu ma dafa leew ki dafa leew ki da nga ñaan sa baat dem sa yoon كي سوكو فاي مانا مانا لها واتر تلو جنو فوتي مان سوكو فاي داي داي فاسكا كي يو مان نياتا غورا ماي توب سما تليفون بي شاك يو ميساج ما تدام لي ريجيتي تما لا داك نولا اوب خا سي مي ديو يو اي لك لا كاي توب اي غورا لك كاي توب اي غورا ديغن اول بولو ما في غورا ديغن نيو كاي اخنا كو ديلام ديلام دافا يك بوكو كي ما لا ديفار باغا ملني واخنا لا دغ نيت توب نيت توب كير غي نو كو ديف دارا لا لا يو ياما ورا مويتو تي بير كير غي يو ياما ورا مويتو سو بايول اردو واخنا لا بول تانغا سما خول بي واخنا لو

nee na àndoo leen dàq moo leen gën a xees moo leen gën a mokk moo leen gën a nawet moo leen gën a mën da ngaa mën a fen gën a wax lool yow yaa waaw yow yaa mën a fen bàyyi di safeeku waay dërëm bàyyi loolu bàyyi jox nii di ko sànni yow da ngaa xamul sa bopp ndax yow dërëm ba ñuy def suñu signé papier de mariage bañ demee jàkkaarloo juge bi lu mu la wax du ma accordé mariage bi ndax kii du sa jëkkër pourtant kenn accordé amuñu papier mariage yow xam nga lan la yow da nga maa war a may sama jàmm yàbbi leen ardo yéen lan la yàbbi wuñ ko yàbbi leen ardo yow mi ya, war a yàbbi ardo yow mi ko def lekk ak naan di ko añee di yow yaa ko jàmbur la doomu jàmbur la man maay taxaw ngay ngay défendre beneen jigéen man maay taxaw ngay défendre beneen jigéen ma wax ni waxoon nee na la nee na moo gën a saf moo la gën a moo la gën a mën lépp. Eh, man Ardo xam eh man Ardo xam naa kër yi sax ñam nañ ko. moom safa safa xam nga ko. Hmm. nga ko kat bu baax na Ardo ba ñu dara ci boppam. waaw ah, xam la ah, man nekkuma fi ngay war jigéen ñi soo waree jigéen ñi ba man may war hôpitaux yi di faj infection wala sida dama ko nangu may ma sama baat. may may ma sama baat la waaw waaw may ma sama baat may sama baat dama du ma faj benn feebar. du tax góor du ma faj benn feebar. man góor du ma góor du ma ci maye baat. góor du ma ci maye baat. may ñu suñu baat góor du ma ci maye baat. mayu ma la waxoo dëgg danga may ma waaw mayu ma ko. may suñu baat waaw doo ma dimbali yow yaa yow yaa takkoon tey. saa yi dañuy may suñu baat yéen may ma rek. xoolal ci meekul. saa yi eh. kii day jaay lakkaay. mais yow lan la yow yaa moom nit ñi yow. di saa yi la dama bëgg nga xam ko. waaw ah? fooy jaay leew fii fii la wulee ñaay. waaw may ñu suñu baat ñu dem. waaw eh, may ma leen. may ma leen mayuma la. fay fay jàmm. dama don bañ dor, de. dama doon bañ a dóor. ji yor naa yor naa doole ji. ñaan dama doon bañ a dama doon bañ a. dama doon bañ a dóor. maa leen ëpp barki unité bi maa leen ëpp di nga di nga wala gi na arrêté. gi na arrêté. gat. espèce de menteur. voleur. yow ya, tëjal sa gat neel waaw neel tëj naa sama gat tëj naa tëj tëj naa gat tëj nga sa gat problème yi dig ci génn ah yow waaw faaw ma fayu waaw dóor ngeen ma ba may bëgg a dee waaw sonn naa <laughs> amu ni saf sonn naa waaye yéen yéen amer ngeen ma waayu waay na amati na problème bi amati dégg saa yi nekk am na doole lagalu fi foofoon nag saa xaw na lay tey jii ku ñëw ci moom